di sëriñ ahmadul muxtaar mbakke yal na fi yàgg lool te di ziar mbokk yépp te di leen dalal jàmm fas yéene nag dugg ci li nga xamante ni mooy cérémonie religieuse bi nga xamante ni moom la amal ci 88e édition màggalug Daaru Xuddus di màggal gi nga xamante ni ci la Serigne Touba Xaadimu Rasuul wàcce woon liggéey ñibbisi fii ci tuuba te taawam bu baax ba Cheikh Mahamadul Moustapha indi ko fii def ko ci biir jumaa ji mbokk yi nag xam naa ni délégation yi bari na tabaarkàlla ñuy sàkku rekk ci mbokki orateur yi nga xamante ni ñoom lañuy jox kàddu képp ku ñu ci jox kàddu lépp loo mën ci tënk nga dimbalee ñu ko ngir tamit ni nga xamante ni noonu la jataay bi bindoo ñu may nu tuuti teewlu ñu dugg ci liggéey bi Serigne Ahmadul Muxtaar ginnaaw bi nga xamante ni jël nga liggéey bii teg ko ci sa loxo ay jëwrin Serigne Abdourahman mbàkke ak Serigne Cheikh Alioune Mbakke mi nga xamante ni moom mooy coordonnateur bi te mu liggéey liggéey boo xamante ni bu rafet la. àdduna sépp seere nañu liggéey bu rafet bi nga xamante ni Serigne Cheikh Alioune Mbacké defal na la ko ci màggalu Daaru Kuddus gi incha allah danañu ko jox kàddu ci kanam waaye ku gis délégation yi teew ku gis këri diine yi teew ku gis lislaam gi ni nga xamante ni noonu la teewe dana danañu xam ni la nga dénkoon Serigne Cheikh Alioune Mbacké matal na ko sëkk sëriñ bi nag ñu di xamal ni jataay bii sa mag Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na fi yàgg loolu te wér moo fi jiitu ndawam tamit moo fi jiitu yabal fi taawam sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Cheikh Mati lay ñëw na fi ànd ak délégation bu takku takku incha allah ci dellu si waaye tamit sëriñ Muntaxa Mbacke moom Cheikh Mahamadul Bachiru Mbàkke moom i tamit yabal ci délégation bu am solo sëriñ Cheikh Mbàkke Abdul Latif jiite ko ànd ak yi tamit Serigne Cheikh Mbàkke Xaadim moom Serigne Muntaxa ak mbooloo mu takku waaye sëriñ bi xam nga ni liggéey bii bi nga ko jëlee yi tamit ah teg ko ci loxo sëriñ Ousmane Mbakke mi nga xamante ni mooy jëwriñu diwaanul muridina bi nga xamante ni mbooleem daayira yi ak kuréel yi nga xamante ñoo nekk ci kër gi di Daaru Xuddoos Serigne Ousmane Mbakke ak waa diwaan bi ñoom it liggéey nañ ci liggéey bu am solo kon nag balaa may ñëw ci wéyal délégation yi jataay bu mel nii duñu def lu dul ubbeeku ak alquranul karim kon dañuy ubbi délégation bi euh, euh, jataay bi ak alquran doog a dellu waaye di la xamal tamit sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou moom itamit tamit ci na ci jataay bi mu mel ni ki daal njabootuk sëriñ Tuubaa gi yépp ñëw nañu fi incha allah dinañu ci dellu si kon ñu daal di ubbi jataay bi ak alquranul karim sëriñ Bachir bismillah billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ولا تموتن إلا وأنتم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 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ci alquran ju set ju leer jooju ah sëriñ bi ba tey rekk di la xamal ni njabootuk sëriñ Touba gi yépp ñëw nañ sëriñ docteur Khadim Mbakke teewal na fi njabootuk sëriñ Moustapha Absa gi yépp ñu ràññee fi tamit teewaayu soxna astu moom sëriñ du borom dër bi waaye sëriñ bi président Macky Sall yabal la délégation boo xamante ni tamit bu am solo la yaakaar naa ni gis nga composition délégation bi incha allah ñëw bu ñu ci ñëwee dina gën a yaatu ci njiital monsieur le ministre Mansour si moom i tamit taxaw fi ñaari casquette ndax bërki démb ñu fi dalal délégation bu bàyyi ko Tiwaawan ñëw fii ndax màggal gi Serigne Cheikh def na ci liggéey bu am solo incha allah Serigne Ahmed Khalifa Niass moom i tamit mi ngi fi dina fi yëkkati kàddu ci turu mbooleem këru diine yi. ngir ñu bañ a guddal rek au mesure ñuy dem dina lim délégation yi fi teew waaye ngir njëkkante ak waxtu wi damay jox kàddu gi Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Aliou Mbacke. mu dalal gan yi ubbi jataay bi ñu doog a wéyal liggéey bi sëriñ Xaadim bismillah aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqiim siraatal ladiina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalliin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba alayhi yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam sant xadimu rasul ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan ci ci kër Serigne Touba yi ci Darou Khoudoss ci bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñu doon màggal démb muy bis bi nga xam ne ci la sunu yaakaar rek ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu euh, bi génnewoon àdduna taawam bu mat taaw ba bu Cheikh Mamadou Moustapha jël muy bis koo xam ne bis bu màgg la ci yoonu murid bés bu màgg la ci taarixu Sénégal bés bu màgg la même moo xam sax ci Afrique wala ci àdduna si kon bu nu ko wootee ci turu ki nga xam ne tey mooy jëmbal sëñ Modou Moustapha fii ci kaw suuf muy Cheikh Serigne Ahmadou Moukhtar àdduna sépp ñëw daje ci mboole kër diine yi mbooleem mbokk yi teew fi mbooleem xarit yi teew fi ñépp teew fi ak les autorités administratives et les autorités gouvernementales avec des fortes délégations ñëw teewee si bis bi ànd kook noonu loolu mbégte bu mag la loolu moo tax ma jël kàddu gi di leen wax egsi leen ak jàmm ñi ngi leen di ñaanal jàmm ngeen ak si jàmm ñu soobu ci waxtaan wi nettali fii li nga xam si leen moom lañ fi bëgg a nettali ndax sunu jotaay bi tey dañ ko def wutali wuñ ko ak jotaay yi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Moustapha daan def ndax bis bu daan ñëw day dajale jaboot gi waxtaan ak ñoom seet thèmes nga xam ñooy def actualité mu waxtaan ci ak ñoom ci ak joxe ci xalaatam joxe ay recommandation waxtaan ak mbooloo mi dénk leen ba dee ak jàmm. Euh, woo nit ñi ngir ñu waxtaanee ci waxtaan yenn yi nga xam ne moom la sëñ Moustapha daan wax ak. bokki taalibe yi ak i bokki boppam ñi nga xam si moom la bokkaloon si ak Serigne Touba loolee nag ca yoon woowee rek la ñii ko fi teewal tey ci bopp ba comme ni nga ko waxoon léegi monsieur Amadou Moukhtar ak mboolem njabootu Cheikh Moustapha bi yi ak xarit yi ak ñëpp ñoo xam ne ñëw nañ fi ñëw ngeen seen kër ñëw i bokk fekk si waa kër Serigne Touba ñi yeewoo ci kër Cheikh Moustapha kon ci seen tur laay wax ne. ñi ngi leen di ñaanal ngeen dal ak jàmm ak seen jàmm ñu déglu waxtaan wi settal cee xalaat ngir ñu mën cee jariñ ci biir loolu danañ ci ay discours yoo xam ne Cheikh Amadou Moussa daanaka faral di wax ak jullit yi bu defee ak mbokk yi ci biir loolu ah damay jóg duma ma sore ci wax ji dama leen doon wax rek bienvenue kon ginnaaw loolu am na damay daal di jël kàddu ko jox ko docteur Khadim Silla moom mu ñëw seet ci thèmes yi nga xam ne Cheikh Moussa ci bis yu mel nii ak fi jamono toll ak li nga xam ne actuellement mooy ak mooy moom moo tax mooy ak ci jamono mu ñëw génne ci benn ci discours buy mën dëkk boobu pour waxtaane ko ngir doomu aadama yi mën ci fàttaliku góor googu euh, kilifa googu ngir mën a jariñu ci ay ay waxam mën a jariñu ci ay kon docteur Khadim Sylla bu fekkee mën ngaa jege si ñu jox la tànn teg ko ci kilifa gi di seex Ahmadul Moxtaar mu jàll ci ñi fi teew ñépp comme niñ ko waxee ci ndigalul sëriñ seex Ahmadul Moxtaar bis bii ci jataay bii seex Muhammadul Moustapha ni ko sos dafa baaxoo waan di ci bind benn message boo xam ne moom lay jëme ci mboolem jullit yi ak taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal réew mi léegi nag pour dundal suna soosu tax sëriñ bi bëgg at bu nekk ñu barkeeloo ci benn discours boo xam ne dañ koy jël e jàngaat ko dafa tàmbalee ay waxam ci bismillahi rahmaani rahim julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima daan ne i'lamu أيها الإخوان المريدون إنما جمعتكم في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك في هذه البقعة المباركة لأذكركم ndax fa inna zikra tanfa'ul mu'minina mu ne maa leen dajale woo leen ci pakk bu tedd bii ci bis bu màgg bii waaye li leen di doye nag la ci jiitu mooy fàttali leen li nga xam ne dañ koo bokk te mooy li nu indi ci kaw suuf ak li nu fi bàyyi ndax sunu borom subhaanahu mi nu bind indi nu fii moo nu digal nun mboolem ñi nga xam ne dañoo jaboote ay nit ci wàllu diine nu di leen fàttali loolu yëmut ci loolu waaye daf caa dig ne waxtu ngeen leen fàttalee man danaa leen warlul man yàlla ne fàttali ga dana jur njariñ Cheikh Moustapha ne kon nag wa usikum bi taqwallahi taala fi sirri wal alaniya mu ne kon nag li jiitu ci li nuy fàttali mooy li yàlla wax ni nit ñi ci la ñuy gënantee ci lañuy ñuy rawantee sunu borom ne nit ñi duñu rawante ci ab juddu duñu rawante ci ab xam-xam duñu rawante ci aw melokaan ci kulóoru yaram waaye ñi ngi rawante ci lenn rek muy ku la gën a ragal yàlla moo la gën Cheikh Moustapha ne kon ragal yàlla boobu tey moom laa leen di fàttali ragal yàlla nag nee na dafa am lu koy màndargaal mu ne lu koy màndargaal mooy bir ijtihaad fi imtisaalil awaamir wajtinaabil manaahi nee na yi ragal yàlla mooy ñu farlu ci li nu yàlla sant ci loon war a def lu farlu ci di ko def lim nu tere ci loon war a bàyyi itam nu farlu ci bañ koo jege fenn mu ne waalamoo ann almaamurat bi a ila al aana xayrul maniyat anha wa ann al maniyat anha ila aan xayru xayrul maamurat biha Cheikh Moustapha nag ne li nu bàyyi ci kaw suuf andi ci nag dafa ko ñaari xaaj li nu yàlla digal ne bokkul ak lim nu tere ne lu ci nekk nag cërub boppam la boo xam ne ngir nu mat liñ doon lépp yàlla bëgg ko ci nun fokk nu sàmmoonte ak ñaar yooyu Cheikh Moussa wax ne <clears throat> ndigali sunu borom subhaanahu yi ak tereem yi lenn lu ci nekk wàllu boppam la cëru boppam it dañ ko war a jox mu xam le ne bu fekkee ne taxaw nañ ci li yàlla digle lépp ba mat sëkk di julli yu julli juróom julli di julli julli juróom di woor weeru koor di génne asaka ak a aji màkk ci ko sax yi dañu ci yow di jàng alxuraan ak di sikkar yàlla ak di def lépp nag te lim nu tere bàyyiwuñu ko it Cheikh Moustapha ne du tax lu mucc nee na liy tax nu mucc fokk dañuy taxaw ci li nu yàlla digal lépp ba mat sëkk nu di ko def waaye li nga xam ne dana ko tere yi nu moytandiku ko mu wax ne su fekkee ne bàyyi nañ tere yi itam te jëfewuñu ndigal yi itam du tax lu mucc ndax way juróom wu tedd ba xaadima rasuul wax na ne bu yawmal xiyaamee dañuy wax payit te mooy perte nee na keroog la ñuy xam ki ko def ndax danga gis koo xam ne buñ demee ca bis bi ñu dajale nit ñëpp ka jëkk ak ka mujj war a peese seen i leen a atte Cheikhul Khadim nee na da nga gis koo xam ne angaarum ay yiwam dañuy jàpp ne ca àjjana ya gën a màgg ca lañ koy dugal ngir jëfam yu baax yu bari yuñ jàpp waaye ndeke wóote nam ci ndigal yi moytu ko woon tere yi am na nekk na koo xam ne fu mu wéete ma nga ca deri mbokkum julitam di wax du mu wërta wax di teg ci seeni der lu ñaaw nekk na koo xam ne fu ay bokk wala ay wëlëri wala ay dëkkandoo seenu diggante yàqu boo ko xoolee du génn ca ña ko yàq mu ne bu keroogee ñooñu ñëpp dañ leen di woo kenn ku ci nekk la nga ko amee lan lam la amee lan ci ay jëf yu ñaaw ñu def ko ci aw këyit muy ab not Cheikh Khadim ne bu keroogee ñooña ñuy bëse ci jëfam ju baax joojee di leen fay ne la da gis koo xam ne dana fay ba jeexal takk ba angaaram boobee ñu doon soow jàpp ne ca àjjana ya gën a màgg ca lay tàbbi dana jeex ba noppi borom bor ya taxaw borom bor yoon taxaw amatut lu mu leen fayee te nee na bu baa kenn du ñàkk lu ñuy def mooy dañ leen di woo ba ñëw kenn ku ci nekk bu dee fukki kilo la amee lan ci poids bu la war a fay wala ñaar fukki kilo dañuy jël ci say ñaawteef ak sa jëf yu bon lu toll noonu dollil ko ko ci ay ñaawteefam waaye foofa kenn du fa per Cheikh Moustapha ne kon nag loolu moo tax ma di leen digal ni ngeen parloo góorgóorlu ko ci jëf yu baax yi ngeen di def ngeen góor góorgóorlu ci moytandiku safaan bi muy jëf yu bon yi rawatina li ngeen seq ak seen moroom yi doomu aadama ndax nee na li ngeen seq ak yàlla yàlla mën na leen a yërëm jéggal leen ko waaye doomu aadama la te koy soxla bu baax a baax a baax kon nag nee na la yonent bi wax ne ab jullit mooy ci moroom yi jullitam mujj ci aw làmmiñam ci wax leen lu leen war ta wax moytu leen a wax lu leen war ta wax waaye mucc ci ay cëram ci def leen lu leen war dem Cheikh Moustapha ne wa anna al maniya an u maa waydihi wa inna waadallahi xaqun wa innama tuuaduuna la saadiqun nee na lu nu dig lu nekk lu nu digal lu ne boole na ca ak pay ga gam war a àndal waaye lu mu nu tere lu nekk itam buñ ko bàyyiwut daan yam war a àndal ak fitnay ëllëg ja boole na ko ak moom te moom day nee na ah, ab digam du jaas mukk mu ne waaye malheureusement walakin aksara naas laa ya'lamuuna li ëpp ci nit ñi xamuñu xàmmewuñu Cheikh Moustapha ne wala tasunnu anna fadlallaahi taala fi ma aw awsa'u minhu fi ma ya'ti bu leen jàpp nag jamono ji nee na yàqu na ba ñu jàpp ne magasin ñu bari jàpp nañ ne magasin ya yàlla tippale woon gaa yu baax yi démb ak barki démb dafa wuute ak magasin yii fi nekk tey mbir ci tibbal nun ñii fi nekk Cheikh Moustapha ne déedéet magasin ya fa nekkan démb mu di ca tibbal gaa yu baax ya ñuy am wàccuwaay ci yàlla am cër ci nit ñi buñ diglee ñu def buñ teree ñu bay luñ laaj ñu joxe ko Cheikh Moustapha nee na magasin yooyu moo fi nekk ba léegi kon su fekkee ne su nit jamono yii dañoo am dañoo ñàkk loo xam nañ ña ko jiitu woon amal nañ ko yàlla da na a cër ba mu séddan ñooñee Cheikh Moustapha nee nañ seetaat seen bopp xam ne xayra an na la al abda isa taxayara bi nafsihi xayara rabbuhu ma kaana bihi ne yàllaa ko waxal nee na lu baax li ngeen nekk ba tax ma jëral leen boobu sama bopp jëral leen li feeg yéen ngi ci dama koy dolli waaye waxtu wu ngeen deltoo gannaaw nag jóge fa ngeen nekkan ma téye li ma jox yoroon Cheikh Moustapha nag ne kon luñ gis ci biir coppitu jamono muy lu daan am ci lu baax te amatu cër yuñ daan joxe te joxeetuñ ko nañ xam ne ba gaayeeñ daan jox cër ya jaaran ba am ko fa lañ jaara tut ina laa laa yuxayyiru maa bi qawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim mu ne nag kon nag ku bëgg a seetu da ngay ndax liggéey cër bi yàlla joxe kat dafa am prix képp koo xam ne nag joxe woo prix ba bul ko seetu mu ne nag dëgg la fa maa laktum isaa salaktum tariixa an laa tadlijoo atta tasilu naam anna al awaa'iqa wal ak kasir kasira wala najaata minha ila bi nasrin min allah nee na dëgg la nag gàllankoor yi bari na ci wàllu adduna ak seen wàllu diine ba ku yàlla dimbalewul rek doo doo raw waaye nag nee na ku jox yàlla sa bopp sax ci ndigalal yàlla itteel la nga di ci xëy di ci gont yàlla nee na man maay jël sama engagement dimbale la sama bopp te ku ma dimbale nag nga mucc ci gàllankoor yooyu waaye nee na ku saggane samay ndigal nekk ci sa bopp nag ma bàyyee la ak seytaane ak gàllankoor yooyu te ku ma bàyyee sa bopp ak yooyu kenn mënatu laa dimbale ku la bëgg a dimbale yi nee day nax boppam mu ne mu wax ne wa tasimoo bi abdillahi jamian wala tafaraqu nee na ngeen tuub dellu ci seen borom te boole seen bopp mu nekk benn jël lislaam mi leen boole muy ak buum nee na ngeen takke ko seen say woowu moytandi teqalikoo ci seen i xalaat moytandi koo teqalikoo ci seeni i jëf moytandi def ay tendance di xeexante ci seen biir wa tuubu ilallaahi jamii'an ayyuhal mu'minuuna te ngeen gi tuub di dellu ci seen borom ndax càggante yi bari na te dara mënu cee musal nit ki lu may dellu ci boromam mu ne na xam ne anna dunya faaniya adduna kër la koy jant wa anna man alayha faani lu fi nekk itam day jant day jeex wa anna al axirati iya daarul qaraar kër gi sax te ku fa dem doo fa jóg mooy alaxira te nee na wa annakum xaadimoona bayna yatay waa idal qaar kenn ku ci nekk saa yoo xëyee yaa ngay jëm ca kër googee te doo dartu gannaaw ku xëy ku nekk am na bis bu wàññi ci yow boo xam ne du dellu si waat te nee na waxat jaal kitaabu xabla saalika taaliman bi ma unaadi te nee na yàlla kat tel na noo avertir xamal nu la ñuy fekki foofa mooy lan fa amaaman taxaawa asaral ayaat fa amaaman taxaawa asaral xayaat dunia fa innal ku sakkan jël adduna lépp def ko muy sa lépp gannaawal alaxira sa waraay sa kër ëllëg wa amaman xafa ma wa amaman xafa maqaama nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al képp koo xam ne nag jox nga sa bopp si yàlla sa borom bàyyi xel ëllëg di jaamu yàlla mooy tere yi Cheikh Moustapha nee na yàlla nee na àjjana mooy sa kër te nee na fa amaaman sàqulan mawaasiinoo fa wa fii isatin raadiya wa amaaman xafan mawaasiinoo fa umu awiya moyen bi lan la alquran wax cinquante virgule nangam ajjana la quarante neuf bu makkut cinquante sawara la cinquante képp liste d'attente la liste d'attente boobu nag bala ñu caa jublu ñi war a tab bi ajjana la ñuy installé tab installé ñu war a tàbbi sawara ba noppi jooga ñëw ci législative bi rek jox góor yi góor yàlla yi am ngërëmul yàlla kenn ku nekkit yàlla nee na quota laa lay jox bopp sa ñëw koo jéggi sa ñoo defal intervention kenn ku mën a joxul nga defal ko intervantion man te la si yas fama indoo illaa bi isni yi kenn sañu te intermédiaire kenn te am na catégorie boo xam ne liste ruus la ñu nekk kenn amul sañ-sañ di leen intervenir fa maa tan fawum safaatu safiina si amul faa ne kon nañ bàyyi bis nañ bàyyi xel bis boobu te waajal ko te xam ne day ñu nekk ci digal bu bis ñëwee danañu am loo xam ne fa tabarakallahu danañu bëgg te yàlla nee na jox nañu ay misaal yu bari kon nag ne paatabiroo yaa ulil absar ne suñ xel yi nu yàlla jox Cheikh Moustapha nee na jërë nee na jër jër yàlla joxuñu ko lurul muy xalaat ci li weesu di ci jàng suñu tey ak suñu ëllëg ndax nee na bu ñu xoolee ci li weesu fekk nañ fi ay mbooloo yu nu jiitu woon tabax fi ay njënd am fi ay nguur am fi ay daraja am fi alal juru jeex am fi barke am fi lu nekk tey dem nañ te du ñu dellu séddi nee na am na ci ñoo xam ne ay palais lañ dëkke woon tey ci ay pax lañ dëkk tey nee na waddi xataan ahmaalam fa saaroo sukkaan al xubuur baada sukkaan al xusuur nee na nag ña nga xam ne teraanga ji leen yàlla joxoon fii ci àdduna ak barke ak nguur doon nañ ca fàggu ëllëg nee na tey teraanga jañ fekk moo ëpp jañ jiñ fi bàyyi gannaaw waaye ñi nga xam ne bàyyi woo yoon xel ëllëg day torox te jañ fa fekk fàttaloo na leen li doon dund tey mu ne waa ne naa wa aaxiroona naadimoona mutaallimoona mimmaa jazaahumullaahu bimaa kasabu aydiihim mu ne nag inna llaaha laa yuzlimu naas walaakinna naas anfusahum yuzlimuun mu ne na ci mujj wa usakkirukum aydan bi ma qultu lakum fi l aami l maadi min amri ndax it nag Cheikh Moustapha dafa am lu mu jàngalee daan ko jàngale ci bis bii bis bii moo nekk rassemblement bi nga xam ne moo daan daje commune moo daan daje communauté bi yépp parce que moyen de communication amutoon bu ak siwaa liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Xaadimu Rasuul bi di jumaa ji ak yim fi bàyyi yépp jataay bii bu amee ba mu def discours bi ba àggal lu muy jëkk def muy li muy day def bilan wax li at mi weesu liñ fi dajale ci alal mu jëm ci liggéey bi nan la toll woon lan lañ ci jot a réaliser lan moo ci des ak atum ren mii ak mi ak yi jublu ban programme lañ am ci wàllu liggéey bi ak lan la laaj ci xaalis ak ban taxawaay lañ ci war a def muy transparence bilan la daan def ci at ci ci ci bis bii soññi waat nit ñi nag sensibiliser leen loola moom lay waxaat fii ba mucc ba mu ne maa ngi leen di fàttali li nga xam ne du ci dàcc di ci fàttali ndax li feek nekkul ci yéen lu ngeen jéemit du ngeen ko man mooy tappe seeni i xol bu nekk benn di yéeneente jàmm di ko waxante xam ne doole moo mën a dimbale nit ndax mbooloo bi lu bari bari nee te organisé wuñu ko ànduñu nekk benn du ñu mën a dem fenn ibbi bàyyi foofu ma mu ne kon ngeen ànd boole seen bopp mu nekk benn di laa ci seen i wax ak seen i jëf muy képp ko am xalaat bu rafet boo mën a jottali sa mbokkum julli bu ko amal njariñ muy ay conseils yoo ko mën a jox nga jox ko ko képp ku ko mën a jàppale ci wàllu solidarité ca lam ca lam soxla woo nga dimbale ko ca waaye mu ne it ngeen taxawu nag ci li ñuy tuddee médiation sociale ne wëcca idoo fii isla isatil bay ndax nee na bari aana bokk ku yàqu dëkkandoo yu yàqu kóllëre bu yàqu ànd bu tas te nekk ne ña war a jug sol seen dàll def la leen yàlla sant ci lijjët ci leen ñoo ñoo ko defut kenn ku nekk di seetaan rek di seetaan rek ne seetaan mi nañ ko bàyyi fu mu diggante yàqoo nee na ne ay nit sol seen dàll ndax ñi yàqu mënatuñoo lijjanti seen bopp na ko nit ñi def ndax nee na loolu bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg ci mboolem jaamu yàlla yëpp kon ne mi nu koy dégg nee na itam ci bu mujj bi kon la mu doon wax ci suñ diggante ak autorité yi na nañuy jàpp nañ xam ne li ñuy tuddee autorité mooy ñi yàlla teg ci sunu kanam ci wàllu àdduna yàllaa leen fi teg ci coobareel kon nag nañ leen warmaal jox leen cër xam ne institution la dañ ko war a ormaal waaye jàppale leen ci li nga xam ne mooy programme bi ñu am ci luy defar nag ak programme bi ñu am ci xeex ak yàq loolu la wax wa ay sukuntum bi at bi taatub wal islaahi wa tarkil fasaad lii nag li ci sëñ bi daan wax nee na jàppale sa kilifa moo xam ci wàllu diine moo xam ci wàllu adduna nee la ci jiitu mooy yanul ko sa bopp Cheikh Moustapha loolu daan jàngale yanul ko sa bopp dafa am ku ñëw fii bi mu jiitee liggéey bii nekk xalif xaadima rasul ku ñëw ne ko Mbàkke yan bi dafa diis lool te ànd ak i coono ak i difficulté yu baree bari ma am yéene jàppale la ci bëgg nag nga wax ma li nga jàpp ne bu ma fa féetee rek danaa la man a danaa la mën a jàppale booy booyal bi woyal Cheikh Moussa ne ko yanul ma sa bopp ne li ma bëgg nga dimbalee ko rek yanul ma sa bopp waaye ngeen teg mu ne ko xam nga lan mooy yanul ma sa bopp mu ne am ah, na ko gàllankoor yooyu nga wax ak jafe-jafe yooyu nga xam ne moo aju ci yan bii te muy dëgg ndax moo yan bi ñoo ànd da fexe ba dara luy yàq lu ma yàqal liggéey bii di ma gàllankoor du bàyyi ko ci yow du bàyyi ko ci sa njaboot. <laughs> yaa ngi dégg. mu ne ko gàllankoor yooyu ngay wax ak jafe-jafe yooyu moo yan bi moo ànd waaye boo ma yenulee sa bopp nag ci fexe ba dara luy yàq wala lu ma yàqal wala lu may gàllankoor du bàyyi ko ci sa bopp rek mu daal di woyal moom la wax ne kilifa yi boo koy dimbale muy kilifa ak àdduna wala kilifa ak diine da koy yanul sa bopp kon nag nee na nit ñi yanule kilifa seen bopp mooy nañ fexe ba kenn ku nekk na nga jàngal sa njaboot na leen yar na leen toq ci liggéey ak am jom ak sukkandiku seen bopp waaye na nga fexe ba ba dara lu yàq réew mi ak pénc mi du bàyyi ko ci ñoom nee na loolu soo ko defee rek la leen war a defal lépp defal nga leen ko te nee na noonu lañuy ñuy dimbalee aw askan noonu la ñuy dimbalee sa kilifa te mooy fexe ba yanul ko sa bopp muy fexe ba defar ga nee na naka noonu itam kenn ku nekk penc ma nga dëkk loolu da ko tàmbalee sa njabootu bopp teg ci sa pencum bopp moom laay je moom la jeexalee sa pencum bopp nag nee na da ngay fexe ba lañ soxla woo kenn du la ci jiitu ca la nga ca man ña fa nekk war a taxawu itam kenn du la jiitu ci taxawu ko taxawu leen ca na ko mënee nee na su fekkee ñëpp def nañ loolu rek réew mi day daal di jag mu ne nag critère bi mujj nag mooy ni ngeen di ànde ak autorité yi nee na na ko lislaam ak sin diine di réglementé di ko conditionné lépp loo xam ne ngaa ngaañul diine nekku ca ci ni mënul seen islaam rek nee na te seen njariñ yéen ñi ko seq nekk ca nee na loola lu baax la lu ngeen war def la lépp loo xam ne itam lu jëm ci xeex ak yàq la ak lu yàq réew mi ni ngeen ànd def ko ndax loolu nee na ci la njariñul réew mi nekk ndax nee na kat baat boobu la mujje nee na ana salaamatu wal aafiya damaanul na jaay wa saada ne lu waay ji tal nag da am jàmm kon nag lépp luy may jàmm réew mi di ko sécuriser na kenn ku ne xam nga am nga ci responsabilité ndax nee na mënuñoo jàmm yàlla te amuñu jàmm mënuñoo liggéey te amuñu jàmm kon nag nee na ne ñëpp œuvre ci luy may jàmm réew mi salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.